ISF li ko yëkkati woon mooy njàngu xale yi fexe ba xale yi jàng ak mag ñi tamit ñu tàggat leen ci wàllu examen et concours. Ah, ci wàllu objectif nag mën nañoo wax ne yar teggin ak liggéey moom daal moom lañ gën a teg ci kanam. Boki, Yen, parents d'élèves yi dëkke quartier Fayu 1 2 ba 3 sud stade Ladjor cité lami Kër samba Gueye fàttewuma waa parcelle Assainies Grand Thiès ak som yéen ñi bëggal njaboot am mu mucc institut du savoir et de la formation ISF ou na leen ay institut du savoir et de la formation nekk ci quartier Fayou 1 ci virage police bu Parcel Asseni, ISF ay mbébétam culte de la discipline et de l'excellence éducation à la citoyenneté civisme et éthique, protection de l'environnement, l'attachement aux valeurs, l'esprit d'ouverture, la réussite scolaire et professionnelle ci dal Tabar domo adam Tifan ci girmunek yi gën ngir mu kuy jariñ Bopam, di jariñ jabotam di jariñ l'ISF barabu Sakukayu xam-xam bu indi lu bees luy gën sunum Rio, indil Nelen Kresh, crèche buy dalal cuux préscolaire petite moyenne et grande section cycle élémentaire ak moyen secondaire institut du savoir et de la formation barab bu Karangé matériel didactique de qualité ISF dinamptal, élève am yi préscolaires, ci préscolaire ci anglais informatique ak arabe Indiwale lu muy préparer képp ku bëgg a def examen wala concours ENA douane police gendarmerie ak école yu mag yépp teg ci CAP CAP ENDSS ANTES et cetera tàmbale nañu inscription yi egsi leen ba ISF Thiès quartier Fayou ci virage yu polis parcelle Assainies man ngeen a woote ci 77 358 13 00 ci 77 238 83 82 ak ci 77 655 40 80 suñu mail isforma 70 70gmailcom